L'eau multimédia moi l'un émission à Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badian, angle Paul Oldakar. Dakar L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau et les accessoires ci ay njëkk yéen ordinateur yi ngeen bëgg yi ngeen di un internet bi yëpp ndekete loo multimédia Amnako. na ko ay imprimante yi ngeen bëgg yépp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yépp lépp lo multimédia Amnako. ko téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. 04 L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. Bismillahir Rahmanir Rabbil والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki sant yàlla buur bi subhanahu wa taala bu baax di la nuyu waaye di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun ci jotaayu As-Salaf Ma'al Qur'an du ñu fàtte bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy gunge ci émission bi muy Lo Multimédia nga xamante ne ñoom dañuy jaay lépp loo xamante ni jëm na ci électronique képp ku xool seen ci bande bii di daw ci suuf nga woote ci numéro yooyu da nga fa yegg insha allahu taala tey nag ñu war a door li nga xamante ne moom mooy saison wu ñaareel bi muy saison 2 ci li nga xamante ne moom moo di asalafu quran ñu war a andi leneen ci ay madahir ak ay mawaqif waaye andi beneen xeet ci ay durus yi nga xamante ne moom moo ci téere bii nga xamante ne moom la ñu téye muy al mushafu sharif al mushafu al karim muy téere borom bi subhanahu wa taala muy waxu yàlla buur bi subhanahu wa taala saison 2 bi insha allahu taala ci tawfiqu borom bi subhanahu wa taala ak baaxam yal na nu may ñu mottali ko ñu ànd jàngat beneen tomb ci alquran al karim mooy lan jamcu alquran al karimi xifdan wa kitaabatan ni nu dajalee alquran al karim ba tey jii ñu mën ko xool mu nekk kaamil gu rafet gii nga xam ne murattabal ayaati wa suwar nga xam ne ayat ya daal di toflatoo toftaloo saar yi daal di toftaloo lan mooy histoire téere bi ba gis nga lenn ci borom xam-xam yi bind nañ ci téere tuddee ko taarixul qur'aan al karim histoire al qur'aan al karim li nga xam ne mooy biographie al qur'aan al karim kon tey jii inchaa allahu taala jam'ul qur'aan al karim dajale al qur'aan al karim moom mooy nekk sunu tomb ci li nga xamante ne moom mooy saison 2 bi inchaa allahu taala ñu barkeeloo ko ci téere bu tedd bi waxoon na leen ne al qur'aan al karim géej la goo xamante ne kenn mënu koo jeexal waaye ñun nag doy nañu ñuy barkelloo te leerloo tomb bu nekk ci alquran alkarim naaxudu algayda min faydi alquran alkarim jamu alquran alkarim dajale alquran alkarim suñu ko waxee comme ni nga xamante ne noonu la ko ulama yi di waxee suñu ko waxee day nekk baat boo xam ne baat bu làmboo la la muy tekki ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak la muy ci jamono abi bakrin siddiq waaye bokkul ak la muy ci jamono uthman ibn affan suñu waxee jam'ul qur'an al karim ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la muy tekki moy hifdhuhu fi sudur mokal biko sahabi mokalon ci den yi waye ak na nga xamne non lañ ko don binde ci al adawat al mutawaffira ladayhim ci juntukaay yi nga xamantene mom lañu amone jamono joojee waye jam al quran al karim dajale al quran suñ ko waxe ci jamono abi bakrin sadiq la muy tekki moy ba nga xamantene ne omar sàkku nako ci mom radiyallahu anhu ñu daal koy dajale mu nek ci ben kamil nga xamne jamono joojee aduna gep ben kamilu alquraanul karim goge mom moy bi nga xamantene mom mo fa nekkon bokul ak yi nga xamantene dañ ci ñëw leral ko sañ ci tolle moy musaf ali ibn abi talib ak lenen ku melni ibn mas'ud wa ma ila dalib waaye suñu waxe jam'u quraanil karimi fi ahdi uthman ibn affan moy kamil goge nga xamne umar ibn khattab jëlon nako mu dénk ko sunu yay hafsata radiyallahu anha uthman daal di koy jël daal di koy recopier ci juróom benni masahif ak ya nga xamantene mom mo ci aje won kon jamaul quran al karim limuy tek ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokul ak limuy tek ci jamono abi bakr ni sadiq bokul ak li nga xamne mom lay tek ci jamono Ousmane ibn Affan bu sobe yàlla plan bi nga xamne mom lañuy waxtane ci saison 2 bi awalan dinañ len andil maanaal jamaul quran al karim suñu waxe jamaul quran al karim lan moy ma'na bi suñ ca paree ñu andi li nga xam ne mooy xifdul quran al karim ni yàlla bur bi subhanahu wa taala sàmmee alquran al karim ba yàlla ne la yatihi al albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi wala min xalfihi tanzilum min xakimin xamid alquran al karim comme ni nga xamante ne noonu la ko sama sëriñ firree mooy waxu al imam al kalabi ca téere imam al qurtubi mu ne la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi mooy que ne alquranul karim amul benn téere boo xam ne njëkk na koo wàcc waaye di ko weddi maanaam mënoo fekk ca tawraat wala injil wala zabuur loo xam ne dafay weddi alquran al karim te amut lenn loo xamante ne dina wàccaat ci ginaw ginnaaw alquran di weddi alquran al karim waaye soo demee ci ku mel ni imaam ak ña ànd ak moom dañu ne benn seytaan yi wala seytaan bi nit wala seytaan bi doomu aadama mënoo andi lépp lenn caaxaan ci kanamu alquran wala ginnaawam amut lenn loo xamante ne mën nga koo dugal ci alquran al karim loo xamante ne yàq la laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi maanaam bul yàkkamte di yëngal sa làmmiñ ngir lan yàkkamte li nga xamante ne moom mooy al karim inna alayna jamaahu wa quranahu yàlla buur bi subhanahu wa taala nee ne man yàlla man maa koy dajale ca uh, ak la xamante ne moom mooy lépp loo xam ne moom moo ca aje ca la nga xamante ne moom mooy wàllu njàngub alquranul karim kon yàlla buur bi subhanahu wa taala moom moo garantil boppam li nga xamante ne moom mooy alquranul karim lenn mënu cee yokk waaye lenn mënu koo yàq xifdul quranil karim دفا امنتو دي حفظ القران الكريم في السماء سما القران الكريم تي يلا دفكو سمي سمون باغا خامني فلا نيكون تي اسمان القران الكريم في طريقه الى الارض بالقران الكريم وحي بسجوج وان اسمان دي yalla buur bi subhanahu wa taala daf koy sàmmal boppam jox ko ku wóor waaye ñu escorté alquranul karim ba keroog mu yegg si ci suuf waaye am lu ñu tuddee xifdul quranil karimi ala al ard ni yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmmi alquranul karim ci kaw suuf kon ñetti xifdu yi dafa am ni yàlla sàmmi alquran ci asamaan ak ni mu sàmmee alquran ci diggante asamaan ak suuf ak ni mu sàmmee alquran al karim ci kaw suuf suñ ci paree ñu andi li nga xamante ne moom mooy jamu alquran alkarim fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamante ne noonu lañ dajale alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee ci lan daañu dugg lan jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñu daan bindee waxyu ci ban façon la ñu bindee waxyu bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo doon bind waxyu bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam nit ki mën na laaj mu ne lan moo teewoon ñu dajale alquran al karim mu nekk ci benn kaamil ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabab bi nga xamante ne moom moo tax loolee defuñu ko ci jamono yonent bi loolu itam bokk na ci tomb yi nga xam ne dañ ko leeral suñ ci paree ñu ñëw ci alquran al karim dajale biñ ko dajalee ci jamono abi bakrin sadiq fikratul jama xalaat gi fan la jugee moko waral lan mo ci tax ñu tan ki nga xamne moy zaid ibn Thabit ne ko yoy dajel alquran alkarim karim ban manhaj la zaid ibn Thabit topone pour dajel alquran alkarim karim muddatal jam bi ci ñaata temps ci ñaata dir la zaid ibn Thabit dal di dajel li nga xamante ne moom alquran alkarim khabaru hadha almushaf ak hitam tasmiyatu hadha almushaf ak bi mu paree ndax dañu juk rek fan la tour bi dal di joge nan lañu def ba dal di tartib hadhihi suwar wa hadhihi alayat incha allahu taala ci jamono abi bakrin sadiq dinañ ko andi suñ ci paree ñëw ci li xam ne moom benn la lan moo tax ñu war ko copier def ko ay kaamil fan la xalaat gi jógee ban manhaj la ñu jël waaye Ousmane nan la def ba daal di jël kaamil googu daal koy tasaare ci li nga xam ne moom mooy amsaar yi kaamil yi nga xamante ne moo fa nekkoon ak yeneen téere yi nan la ko lakkee ak moo tax saxaaba ya daal di ci ànd ak ñoom suñ ci paree dinañ mën a wéy ba ñëw ci li nga xamante ne nuqta niqaat yi nga xam ne moom moo ñëw ci alquran ak i ashkaal yi maanaam masque yi ci jamono yentibi amul won ci jamono sahaba yi amul won nan la ñu aw ba ki nga xamantene mom moy abul aswad ad-duali nan la def ba dal ci taxal tadakhul ki nga xamantene mom moy khalil ibn ahmad al-farahidi nan la def ba tadakhul ak seeni majhudat ñom ñee di as-salaf salih jazahumullahu an hadha al-kitab kull khair na yàlla bur bi subhanahu wa taala feelen kon insha allah taala li moy plan bi nga xamantene mom la ñuy waxtane ci saison 2 bi ci gàttal donte am na ay mawduwaat yoo xamante tudduñu ko waaye incha allahu taala lépp loo xam ne moom moo ci war jële ko ci téere yi daal di koy tënk ñun ñëpp ñu mën cee jëriñu insha taala ci al mawsimu saani dina xaw a xam-xame lool insha allah ci mawsim bu njëkk ba gis ngeen ne a soñu nit ñi ñoom ñu xam yool gi nga xam ne moo nekk ko jëfe di ci góorgóorlu kémti lay kattan waaye deuxième dañu gën a dugg ci xam-xam yi nga xamante ne moom mooy aje ci téere bi ba ñun tey jii ñu mën koo jot insha allahu taala yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala fayal ñu yenente bi yàlla fay sahaaba yi fay taabiin yi fay taabiu taabiin yi asalafu saalih mag ñi ñoom ni ñu mën a def ba ñun ñu jot ci téere bi insha allahu taala ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsan salla alilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes l'eau multimédia. l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar multimédia spécialiste de ci informatique bureautique divers matériels réseau ak yeneen accessoires. ci ay njëkk yu xarañ un ordinateur yi ngeen bëgg yi ngeen di set ci internet bi yépp ndekete multimédia am na ay imprimante yi ngeen bëgg yépp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yépp lépp loo multimédia am multimédia Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion